mbokkeen sono ci Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo xibaar bu tiis bi euh, bi ñu fi dab lii nañ leen di xibaar euh, kii wiyoo ci euh, turu Abdoulaye Thiam nekkoon fi douzième gaynde nekkoon li nga xamante ni moom mooy ci équipe nationale bi ci wàllu supporters yi moom moo génn àddina ci bëccëgu tey gi ñu fàttali leen ni moom nag Sénégal ba muy fubal li nga xamante ni moom mooy 2002 ci équipe bii di France Pape Bouba Diop daal di dugalee bii bi moom ca kaw tribune ba moo teewoon drapeau bi di ko yëkkati yàggateewal teewal réewu Sénégal fu ne fu